voilà mbokk yi topp di Ndindyactu point com tey am na nañu mbégte ñëw seen jotaay bi fas yéene si ànd ak euh, médecin chef de la région de Diourbel docteur Mamadou Thiam mi nga xamante ni moo coordonné lépp luy euh, xeex jàngoro jii di coronavirus ci région de Diourbel ñu gis taxawaay boobu mu doon taxawaay bu am solo parce que mi ngi communiqué di wax à temps mi ngi ci terrain bi mi ngi diggante Touba ak euh, Diourbel docteur suñu laaj bu njëkk mooy que ni dañ doon faral di dégg Touba épicentre de la pandémie coronavirus au Sénégal tey situation bi fu mu toll. Euh, jërëjëf comme ni ngeen ko xamee euh, wàllu feebar bi ñuy wax coronavirus mu ngi duggoon Touba le 10 ci weeru mars bi mu duggee Touba nag tase woon nag ñu waajaloon ko mu amoon ay taxawaayu am solo yuñ ci taxaw euh, biñ koy dégg Chine déjà ci le ministère de la santé et de l'action sociale. joxe ay directives wax tëralin yi ñu war a jaar pour waajal feebar bi surtout dëkk yu demee ne Touba ñu fexe ba waajal ko ba nga xam ne du fi dugg mbaa su dee def fii dugg ñu teel ko nemmeeku mën ci taxaw ci tëralin yooyu nag ci lañu jaar ba formé woon suñu personnel formé aussi euh, équipe yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ba pare teg dispositif boo xam ne dispositif de surveillance la surveillance mooy di saytu dëkk bi ak di xool ak di seet di nemmeeku ci wàllu ñi nga xam ne ñooy ñëw ci ñun ak ci wàllu ñi nga xam ne dañ nekk ci biir askan bi ba taxoon cas bi ñu njëkk a am ñu teel ko gis biñ ko teelee gis tamit jaar-jaar yi nga xam ne noonu la ministère tërale ak tëralin yi ci lañu jaar taxaw ci euh, fexe ba defal ko prélèvement mooy analyse boobu ngay xam ne mooy firndeel ni nit ki feebar bi daf ko dal bi ñu defee analyse bi gis ni moom la ñu jël ko toppatoo ko dal di koy yëgal ministère ministère ne nañ ko indi Fann ñu yóbbu ko Fann hôpital Fann ñu ko fay taxaw waaye fii ci Touba ñu taxaw ci waa këram njabootam saytu leen xool gis ne am na ñenn ñu ko ci amoon ba tax ñu jël leen entré leen Daaru Marnaan biñ leen entré tamit comme ni nga xam ne noonu la ministère tërale ndax tamit euh, lu ci nekk da nga koy jaarale yoon wi mu war a jaar ba tax aussi ñu jóg nag dal di teg ponk xeex bi nga xam ne mooy xeex feebar bi ponk yooyu li ci jiitu mooy wax ak kilifa yi nga war a waxal ngir ñoom ñu mën a jël ay matuwaay jàppale la ci xeex bi ci kaw loolu la ñu wax ak préfet wax ak gouverneur wax ak sous préfet ñu organise ay CRD ay CDD organiser aussi ay réunion pour woo secteur yëpp wax leen ne leen feebar bi kat mu ngi am ci dëkk bi ku ci nekk am na lu ñuy xaar ci yow ñu wëlbati ko tamit dem wax ak kilifa yi kilifa yi yoon wi jiital ci nag sëñ Muntaxa Bachir koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér leeralal ko ko moom itam mu dugal ci loxoom ba pare yëkkati ci kàddoom ngir nit ñi topp digal yi nga xam ne kër docteur mu ngi koy digle ñu wëlbatiku nag commencé sensibilisation bi maanaam di yee nit ñi ak di wax ak ñoom ci nu ñuy moytoo feebar bi ak nu ñuy def ba feebar bi du la dal ak yooyu yooyu muy li ñu wax rek mooy raxas loxo ak bàyyi nuyoo ak bàyyi daje yu bëri yi ak tamit xool béréb yi nga xam ne mbooloo daf fay daje ñu koy moytu mbaa ku ciy dem nga sol masque ci kaw loolu nag lañu dem ba gis ne am nañu lu toll ak euh, fukki malaat ak juróom-ñeent fukki malade ak yooyu ñu leen di faj ba tey jii fii ñu toll ñaari malaat rek ñoo ci des fukk ak juróom-ñaar yi wér nañ ba dellu ci seeni njaboot wér nañ ñooñu wér nañ fukk ak juróom-ñaar yi wér nañ ba dellu ci seen njaboot waaw ñaar ñi tane nañ bu baax ñu ngi continuer di leen too waaye dafa fekk ne pour ñu wax ne nit ki wér na foog ñu defal ko analise bi taxoon ñu ne dafa am feebar bi foog ñu def ko ñaari yoon gis ne feebar bi nekkatul ci moom ñu soog a ne wér na donc ñaar ñooñu nga xam ne ñu ngi leen toppatoo ci foofu lañ toll tey jii itam euh, comme ni ma ko leeralee ci njëlbeen gi feebar bi képp ku ko am dañuy seet ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal mm. ak ñi nga xam ne ñoom ngay faral di bokkal jotaay ak ñi nga xam ne danga nga dajeeg ñoom saafonteeg ñoom ñooñ la wax sujet contact contact yooyu ci njëlbeen nga amoon nañ ci cent quarante neuf ñooñu ñëpp dañ leen suivre ba tey jii ñoom ñëpp amatuñ benn contact bu ñuy suivre mm. ndax ñoom ci suivi bi ñu leen doon suivre am na ci ñoo xam ne amoon nañ mbar mandargay feebar bi ñooñu dañ leen defal analyse ñi ko ci am ñu yóbbu leen faj leen ñi ko ci amul ñu suivre leen ba mu mat fukki fan ak ñeent ñu soog leen bàyyi. tey jii amatul kër tamit bu ñu def quarantaine ci njëlbeen nga def nañ quarantaine lu mat ñeenti kër waaye tey fii ma toll di wax kër yooyu yëpp levé nañ quarantaine bi maanaam bàyyi nañ leen ñu dem comme yeneen kër yi ndax feebar bi jeex na ci kër yooyu. Euh, fi ñu tool nag feebar bi amatul ci dëkk bi depuis euh, maanaam gisatuñu ku ko am ku bees koo xam ne dañ koy soog a nemmeeku mu am ko depuis booru le vingt yooyu ci weeru mars ba tey jii tey la neuf ci weeru euh, ci weeru avril ñu ciy sant yàlla bu baax di sant sëriñ bi di sant askan wi yëpp ndax loo xam ne la euh, ñëpp ñoo ci jàpp pour mu mën nekk surtout kilifa yi muy kilifa yi suñuy kilifa yi au niveau du ministère la santé muy kilifa yi région bi muy préfet gouverneur sous-préfet ak maire yi ñëpp dugal nañ seen loxo ci xeex boobu ak acteur de la santé yi mooy ñiy liggéey ci kër docteur ñoom ñëpp bay nañ ci seen waar kenn desul ñëpp jàpp nañ ci xeex bi. su ñaari kaay yooyu ñu wax ni ñoo des te gis na noonu ni si presse bi médias sociaux yi ñu wax ni en fait fi lekk euh, vingt quatre heures mën nañu génn loolu nag mi ngi bàyyeekoo si kilifa mën naa wax sous préfet après ñoom seen source est ce que loolu yow en tant que njiitu ki coordonné xeex bi si département bi si région bi du moins loolu lu wér la. waa lépp day aju rek ci analyse yi ñu war a def te muy firndeel ne feebar bi jeex na seen yaram. Euh, analyse yooyu suñ ko defee gis ne doomu jàngoro bi nekkatul seen yaram su boobaa dañ leen di bàyyi ñu dem donc lépp day aju rek ci résultat analyse yi ndax nit ki balañ ne wér na foog ñu defal la analyse bi su négatifee ñu toogaat lu mat 48 heures ñu defal la ko pour mën la. ban app la ñuy mën a xam ni zéro cas feebar bi. mi ngi koy maanaam si biir Touba am na zéro cas ban appel la ñu mën a xam loolu parce que wax na nañu ni en fait am na période boo xamante ni bu ñu fa tolloo euh, feebar bi day nekk si yow boobu lay feeñ. diirub bi ngeen euh, nemmeekoo ni am na njaboot yu feebaroon ba ngeen jël leen mettre leen en quarantaine ak léegi nii jàpp nga ni ak kii bi am euh, état d'urgence beeg ni ñu tëje gox yi fi ñu toll nii à 100 pour cent Touba kaa amatu fi. Touba kaa amatu fi mais nag loolu warul tax. nit ñi bàyyi seen loxo maanaam kaa amatu fi mooy du ñu ne feebar bi du fi amati wute na ak kaa amatul kaa amatul mooy am na jamono joo xam ne amuñu woon kaa ñu toog ba caag mu am benn kaa après mu tàmbali am ay kaa mu dem ba léegi kaa yooyu yëpp jeex mais loolu firndewul ni feebar bi dootul amati Tuuba il faut ñu nuancer ko kaa amatul mooy toog nañ ab diir boo xam ne amul benn kaa Touba loolu moom lu wér la te it saytu nañ dëkk bi fépp foo xam ne euh, ndax ñun dañuy liggéey ci loolu maanaam fi mu nekk mën nañ wax ne amul benn kaa Touba depuis boobu ñu dem ak depuis bi ma wax ba léegi macha allah ñu ngi sant yàlla mais nag feebar bi dootul amati Touba loolu ñun waxuñu ko. ndax ajuwul ci ñun ajuwul ci ñun donc moo tax ñuy ñaax nit ñi ñu gën a taxaw ci xeex feebar bi tey jii nga xam ne gis nañ ne toog nañu ab diir amuñu kaa tey nag lañu war a laxasaayu gën a xeex feebar bi boobu mu fi amati loolu nag ajuwul ci kër docteur rek ñun surveillance lañuy def ak détection maanaam di gëstu ak di seet hmm. kon léegi lii tax du fi ñëwaat ci askan wi la. mooy lu ko fi indiwaat. mooy askan wi ñu moytu génn di dem fa feebar bi di nekk ndax ku nekk dégg na ne fan yi am na dëkk yu ñu jege am nañ ko dëkk yoo xam ne amuñ ko woon te léegi ñu ngi koy am donc dem ci dëkk yooyu risque la pour ku jóge tuubaa di fa dem di ñëwaat ndax mën nga ko fa jëlee indiwaat ko tuubaa ñi nga xam ne tam dañ tukki woon nekk ci zone yoo xam ne feebar bi dafa bari mën nañu ñëw indiwaat ko fi donte ne sax ñu ngi wax état d'urgence couvre-feu am na liggéey bu am solo boo xam ne force de sécurité yi ñu ngi ko ciy def mais léeg-léeg doo xam nit ki yan pexe lay def ba agsi donc lu demee noonu nit jóge feneen mën na ko dugal Tuuba wala itam nit jóge feneen am ko dem jaxasoo ak ay nit ci marché beeg yooyu loolu mën na ko indi moo tax ñu ne na ku nekk di raxasu bàyyi nuyoo bi te bàyyi aussi mbooloo bàyyi aussi yenn daje yi ay ngénte ay xewak yooyu ndax doo xam ku nekk fu muy jóge ndax saafonte na ak ko amoon déet kon loolu mooy tax ñu fexe ba du fi duggaat mais ku mais docteur corona ñu ni pandémie la day wéy di ànd ak askan wi bokk si dundam euh, tey jii jàpp nga ni ni ñu dundee nii métti na est-ce que mën na continuer. waaw épidémie d'habitude euh, ñetti phase lay am épidémie maanaam même catastrophe yooyu yëpp day am phase bu ñuy wax phase une mooy phase aiguë bi nga xam mbir mi day takk jógandoo mu metti lool kaa yi bari. mu dem ba ci àgg cas yi nekk nag ay cas yu stable cest à daanaka bés bu jot presque même nombre la ñuy am wala tuutee wàcc wala tuuti yéeg mu def plateau maanaam day mooy début bi njëlbeen gi yi dañuy bëreendoo ndax kii day wàll kii kii wàll kii kii wàll kii su ko defee mbir mi di dox mu dem ba ci àgg mu xaw a stable maanaam wàllante bi du yokk du wàññeeku mu nekk plateau plateau boobu nag. mën na dem ay fani fani fan après nag mu commencé di wàcc moom la ñuy wax phase de croissance phase de en plateau ak phase de décroissance décroissance bi mooy dañuy toog ba caag gis ne ña ko daan am par bés lim bi mu ngi wàññeeku di def noonu di def noon loolu moo am Chine Chine bi mu fa tàmbalee dëkk bi ñuy wax wan dafa jékki kaa yi commencé bari courbe bi di jóg muy bari mu dem ba ci yàgg mu xaw a stable dem ba ci yàgg muy wàcc mm-hmm. léegi nii soo xoolee kaa yi ñu doon am ñoom par bés amatuñu soo ko xaajee fukki yoon amatuñu benn xaaj bi ci fukk yooyu waa dañuy jël matukaay matukaay yi nag Sénégal teel na ci taxaw mm-hmm. ndax Sénégal teel nañu kilifa yi teel nañu euh, toppatoo wàllu aéroport yi too wàllu frontière yi ci biir réew mi tàggat nañ ñi ñu war a tàggat wut ay jumtukaay wut aussi laboratoire de référence buy def analyse yi ñooñu ñëpp balaa épidémie bi am ministère de la santé waxtaan na ak ñoom waxtaan na ak Institut Pasteur pour ñoom ñu xam tey su feebar bi duggoon nan la ñuy def ak lan la ñuy soxla ak yan jumtukaay lañuy ñuy wut loolu yëpp Sénégal jotoon na taxaw ministère la santé jotoon na ci waxtaan ak ñi ngang loolu waxtaan ak ñi nekk ci aéroport bi waxtaan ak ñi nekk ci frontières yi dal di wut ay jumtukaay teg ko jox ko COUS COUS mooy centre des opérations d'urgence sanitaire dal di wut na ay tëralin yoo xam ne ñoom dañu toog ay expert ay kàngam toog wax ne feebar bi nii lañ koy nemmeekoo firnde yii mooy wane ay màndarga ni nit ki njort nañ ko ci moom suñ ko njortee ci moom tëralin yii lañuy ñuy tëral ngir mën ko taxaw ngir mën ko seet ndax am na feebar bi wala déet su ko amee tamit tëralin yii la ñuy def ci ay njabootam ci waa këram ci ñi mu amal contact ak aussi moom ci wàllu boppam fii lañ koy faje waaw loolu ministère dañ ci teel a taxaw moo tax fi mu toll soo xoolee Sénégal bëriwul réew yu feebar bi duggee di fa évoluer nii muy évoluer Sénégal ndax bëri na réew yoo xam ne semaine bu jot lañu amoon ci lim ci ñu ko am dina mat fukkam semaine ba ca topp man gisaguma réew boo xam ne feebar bi dugg na fa ndax Sénégal la la la la la tàmbali tey def na weer ak lu topp te pourtant te te ay trois cas. amaguñu amaguñu 300 cas. benn am amaguñu si 300. non ñun amaguñu 300 cas. Mm. soo xoolee waxuma sax 300 cas mais soo dégloo liy faatu tey Amérique mm. démb nee nañ 2000 personnes faatu nañ fa. kon nga xam ne Sénégal am na ay pexe ak tëralin yoo xam ne jël nañ ko te mu ngi produire ay effet leneen nag yokku ci loo xam ne xëy na scientifique yi duñ ci wax lu bari parce que du seen domaine mooy dëkk bi ñaan a ngi fi. waaw ñaan ñaan gu wér. moo bu sa wax na ko junj lu mel noonu. ñaan ñi nekk ci kër yi te yor seeni kurus. ak di ñaan te ñu nekk ay nit ñu sell ñooñu seeni ñaan du nuyul mhm. maanaam. loo xam ne la foog ñu ci bàyyi xel te di ko sàkku te di di di encourager ñu di ñaan ñu continuer di ci ñaan ndax munti ñàkk ndax soo xoolee su doon doolee wala xam-xam wala alal réew yi mu dugg te wasaaroo fa xëy na am nañu wuute ci loolu. yéen loolu waa <laughs> xam nga ñun soo nekkee scientifique. Mm-hmm. maanaam ci ay faits rek ngay mën a juger. Mm-hmm. mais teewul nag ñun ay jullit lañ ay africain lañ sénégalais lañ xam nañ ne eh, am na ay sabab yoo xam ne maanaam mën na leeral li xew waaw l'exemple sénégalais l'exemple sénégalais si wàllub euh, discipline bi ak tamit euh, topp tegtal yeeg yooyu démb rek maa ngi xool si réseaux sociaux yi les Ivoiriens ñu ngi koy loué vraiment naw loolu sénégalais yi mu nekk lu rafet tey ji loolu dolliwaat population avec askan wi parce que tamit dafa mel na ni triomphalisme mi ngi waaj am Touba gis nañu commencé tamit di euh, yooxu victoire te dara xewagul comme li nga wax sànq. non non victoire amagul. nu nit ñi bu ñu yàkkamti ay victoire ak yooyu. Mm-hmm. maanaam tant que feebar bi mu ngi am ci dëkk yi ñu wër waxuma sax réew mi tant mu ngi am ci dëkk yi ñu wër te jege ñu lool ñu jàpp ne am nañ ndam. tànk mu ngi am ci dëkk yi ñu wër ndax ñun bañ koy dégg Chine xamoon nañ ne yàgg-yàgg dina agsi bi ñuy dégg feebar bi Chine ñun tàmbali nañ waajal dëkk bi xëy na da ci am loo xam ne duñ ko wax nii ndax suñu liggéey la mais bañ koy dégg Chine ak nam fa demee ak ni ñu xamee Touba dem beeg dikk bi ak ci la ñu ne foog ñu waajal loolu parce que yàgg-yàgg dina agsi mm-hmm. te te loolu maanaam du sax ay prédiction wala ay jibar ak yooyu mm-hmm. mais c'est la logique léegi le monde est globalisé waa tey jii yow soo jógee woon Dakar centre ville mm-hmm. ngay ñëw Touba jël autoroute bi xëy na soo jógee ndoo ak ku dëkk géejawaay yow yaa koy njëkk ak si Touba mm-hmm. kon lu xew Dakar daanaka day gaaw ak xëy na sax mën na ak si Touba géejawaay soog ci jot waaw donc lu deme noonu bul toog di naagu ne ah lii fële la am wala sori nañu ba mu agsi ci sa yooyu tànk kon tey jii waruñu nekk di wax ay victoire ak yooyu du victoire mais constat la rek tendance yi am rek la ñu wax su demee woon neneen tam dañuy wax ne nii tey kaa yi ñu ngi augmenté walla ñu ngi wàññeeku donc il faut ñu nangu su augmenté ñu wax ko su wàññee ñu wax ko su amul tamit ñu wax ko bés bu amaatee tamit ñaanuñ ko ñu wax ko donc du question vraiment wax ay ndam ak yooyu loolu teel na mm-hmm. tant que mu ngi am ci dëkk yi waxuma sax Sénégal surtout mu ngi am fii rek Louga gi mm-hmm. am Dakar kooku mënoo toog di wax victoire mm-hmm. victoire bi mooy tey jii mu génn ci réew yi nga xam ne daf ñu wër waxatuma sax suñu réew mais génn suñu réew génn réew yi ñu wër génn ci àddina bi su boobaa ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi su boobaa ñu ne ah feebar bi di jëlee nañ ko fi mm-hmm. mais toog ay fan gisoo ko Touba rek jàpp ne victoire la loolu moom santaan voilà nee nañ tamit euh, parfois dañuy appeler di xoqatal population bi par rapport ak euh, ni ñuy communiquer parce que tey boo nee Amérique euh, nga tudd aussi tamit Europe si yenn dëkk yamu dal lu bare di fay ñàkk seen bakkan benn phénomène bi am na mooy population vieillissante la ay mag. bare na fa ta neen li muy lu si ëpp ay mag la te ñoom lay faat loolu tamit est-ce que logique la d'après ni ñu ngi koy waxee naan feebar bi ay xëy na li ëpp ci muy lu muy faat ci dëkk yooyu mag ñi la parce que ñoom seen population ni mu tëddee wute na ak ñun suñ population ni mu tëddee euh, leneen li mooy mag ñooñu li ci ëpp dañuy am yeneeni feebar yu ànd euh, yoo xam ne ñoom dañ ko daan faju lu bari feebar bi nag su ñëwee da leen di gën a affaiblir bon leneen li itam mooy euh, feebar moom su dalandoo ñu bëri di wàllante mu bëri doomu jàngoro bi day gën a soxor maanaam day yokk virulence bi parce que su dalee ñu bari képp ku mu dal sa yaram da koy xeex moom itam day fayeeku ci xeex boobu mu koy xeex maanaam day développer ay mécanismes pour riposter ni ko sa yaram di xeexe virus bi tam day développer ay mécanisme pour riposter ci xeex boobu te mécanisme yooyu muy développer day tax mu acquérir ay caractères yoo xam ne yokk virulence virulence am maanaam day yokk ak coxoram su ko defee dëkk yooyu comme day dal kii dal kii affaire bi gaaw virus bi day gëna a mais mais mais tamit beneen mbir moo ngi nii est-ce que jotul tamit ngeen impliqué fajum wolof yi ñoo waxuma nag à cent pour cent comme naa nu mu def dañoo impliqué ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu si wàllu fajub euh, maam si xeex bi ba apérine su ma juumul euh, comprimé boobu tamit da nga ko fa fexe ba génn ko fa muy jàppale ñu bare te loolu dafa laal dégg naa si wàllu wolof yi d'après euh, certaines informations benn ñu gis nii am ñoo xam ñuy def prévention seen prévention bopp parce que nee nañu limon dina yokk sa système immunitaire xamu yaa ngi si gën a xam ñii naan lem ñii ñi ngi naan jëngeer ñii ñi ngi naan leneen leneen yooyu noonu nit ñi di jël di préparer feebar bi est-ce que tamit bokkul si euh, prévention lu ay lu ayul. bon damay tontu d'abord ci implication tradipraticiens yi nga wax. Mm-hmm. Euh, je pense que xeex bi ñëpp am nañ ci cër. Mm-hmm. mais ku ci nekk na xam cëram. tradipraticiens yooyu fi ñu leen di xaar mooy ci sensibilisation bi ak référence su malade yi. mais xaaruñ leen ci ay traitement ñoom dañu war a sensibiliser nit ñi ak fexe ba tamit malade yi ñëw ci ñoom ñu référé leen orienté leen wala ñu woote ñun ñu toppatoo leen mais xaaruñ ci ñoom ñuy joxe ay reen wala ay fajak yooyu waaw ndax tamit maladie virale la déjà ñoom suñ defee loolu da leen di exposé hmm. ndax feebar bu gaaw wàlle la sa benn tati patient bu ndax feebar bi dafa gaaw wàlle hmm. tradipraticien bu ci dugg naan da koy jéem a faj hmm. soo moytu dina la wàll ndax équipement yi ñuy sol pour jëflanteeg malaad bi ak précaution yi ñuy jël tradipraticien bi xëy na du ko am te ku nekk gis na façon wu exercice bi tradipraticien yi di exercer nga xam amuñu jumtukaay yu am solo trop donc li ñu digal tradipraticien yi mooy ñuy sensibiliser ak di orienter malade yi euh, leneen li mooy garab yi nga wax ak yooyu fi mu nekk feebar bi prévention bi amul jël garab prévention bi li ñuy wax les gestes barrières moom mooy prévention bi ñu war a adopté ñun ñëpp geste barrières yi mooy ñuy fexe di raxas loxo yi muy set ak saabu su fekkee amuñu ndox wala fu ñu raxasoo ñu jël solution hydroalcoolique yi ñu fexe ba bàyyi nuyoonte bi bàyyi jaxasoo bu bëri ak dugg ci ay marché ay kaar fu mbooloo nekk daal soo fay dem nga takk mask moytu aussi di sëqat ci ngelaw li nii sooy sëqat nga wut mouchoir boo xam ne soo ci paree danga koy sànni waxuma mouchoir booy jëlaat defaat sa poos sooy sëqataat génnewaat mouchoir à jeter de préférence mouchoiru papier yi soo sëqatee ba pare seet poubelle boo xam ne day tëju nga def ko ci pour mu bañ a naaw wala kenn for ko wala kenn jël ko leneen li mooy sooy sëqat soo amul mouchoir nga jël sa kudd sa conj nii nga sëqat nii pour bañ sëqat bi ngay sëqat ngelaw li dem fu nit di noyee nga fexe itam ba soo yëgee lu dem ni ay sëqat walla yaram bu tàng nga woote woo sa docteur walla nga woo dispensaire bu la gën a jege ñu ñëw topp toola jarut sax yow ngay jóg di dem ci dispensaire bi ndax saa yoo jógee di dem rek yaa ngi yóbbaale feebar bi te ñi ngay dajal mën nga leen ko jox ña ngay fekk ji aussi mën nga leen ko jox donc dañuy digal nit ki su gisee ay màndarga yoo xam ne dafa njort ni feebar bi la ci yaramam lu deme ne tàngooru yaram bu ànd ak sëqët walla tichooli wala soj wala ay cër yuy metti yaram bu fasu di tàng loolu dangay jël sa téléphone nga woo dispensaire bi la jege cas communautaire yi ñuy wax euh, lu koy sabab en général ak tamit euh, Touba nu mu war a def ba mucc si. waaw ah, cas communautaire ma préciser que ni amul Touba Touba cas bi amoon c'était un cas importé mooy kaa boo xam ne feneen la jóge ñëw moom fañ ko wàlle du biir Touba donc bi mu ñëwee tam teel nañ ko nemmeeku xool ñi mu dendaloon wala ñi mu dajeel ñëpp ñu répertorier leen. dal di leen di toppatoo ci ginnaaw gi sax kaa yu bari ñu am ci ñooñu la ñooñu nga xam dañ daje woon ak kaa boobu léegi nag kaa communautaire li koy indi mooy koo xam ne dafa am feebar bi xamu ko mu dugg saafontek ay nit lu yàgg-yàgg ba ci ak gis ne moom dafa amee feebar bi xamul fu mu ko jëlee xamul fan la jëlee feebar bi xamatul kan la wàll xamul maanaam daal kaa communautaire mooy kaa boo xam ne daal euh, feebar na nekk ci biir askan bi te xamul fu mu jëlee feebar bi li ci ëpp nag cas yooyu dañ leen di yéex a gis ba lañ leen gis fekk ñoom wàll na ñeneen te ñooñu ñu wàll tam wàllaat na ñeneen ce qui fait que cas dafa nekk loo xam ne. lu jara xeex la lu jara moytu la ndax mooy lawal feebar bi kaa yi ñu xam mooy kaa euh, contact kooku mooy kaa bi nga xam ne dafa daje ku ko am ba ki ko am ñu nemmeek ko xam ne kii am na ko léegi contact bi mooy ki mu dajeel wala ki mu nekkaloon wala koo xam ne jege na ko xam nga kooku moom wute na ak kaa communautaire ndax moom dañ koy relier ak ku ko am maanaam dañ naan kii kii moo ko wàll mais cas communautaire mënoo wax ni kii kii moo ko wàll parce que kii ci boppam am na ko mais xamul fu mu ko jëlee waaw loolu mooy cas communautaire. docteur enfin question bu mujj bi mooy que ni da ngeen sumboon ay liggéey si hôpital militaire bi ñëwoon nga fa sax jour boobu ànd ak si ginnaaw de noonu ay xibaar ñu ni danoo taxawal liggéey bi pour yóbbu côté Mbacké lan moo sabab lu nu mel. centre de traitement la tudd centre boobu biñ koy sumb. dañu waxtaan ak kilifa ministère euh, ñu xamal ñu ne dina am hôpital bu ñuy indi Touba boo xam ne euh, dina am capacité euh, vingt cinq li su ko defee hôpital boobu suñ ko defee kii dina mën a xeex feebar bi feebar bi nag su weesoo centre boobu mën nañ koy utiliser pour leneen pour yeneen feebar yuy wàlle bon biñ ñu waxee ñi nga xam ne ñoo yor loolu biñ ko waxee ñun dañ jàppoon ne loo xam ne la su lii weesoo mën nañ ko démonter comme militaire yi ni ñu def ci biir kër sëñ Touba gi xam nga ñoom nañ fa nekkee suñu paree ba lii jeex ñoom dañuy lem seeni bagages dem ñibbi dara dootu fa nekkati mais hôpital bi bi entreprise bi ñëwee pour defar ko ci la lu bëri leer entreprise dafa ñëw di tabax plateforme boo xam ne comme piste atterrissage u avion nga xam épaisseur bi vingt cinq centimètres la ba pare plateforme bi def ci dugal ay tuyaux assainissement maanaam toilettes yi lavabo yi sangukaay yi yëpp dañ ko installé ci suuf ba pare tabax ko xam nga kon loolu tey du loo xam ne mën nga ko dindi après di ko yóbbu feneen mu fekkoon ñun biñ ñu joxee héliport bi fa lañ ko waajaloon pour su xeex bi jeexee ñu dindi ko yóbbu feneen mais bi ñu entreprise bi wonee ni affaire bi mel ñu gis ne tàmbali na tabax ñu ne ko ah lii su fi nekkee héliport bi ëllëg dëkk bi da koy soxla ba pare ni ay oto mën nañ fi dugg war na am parking ñu ne ko loolu xajul ci héliport bi mu mënuñ ko def ci héliport bi ñu dem ci kër sëñ Touba euh, kër euh, Matlabul Fawzeyni bi nekk ci raay bi fële ci yoonu Mbàkke bi ñu demee xool entrepreneur bi ne fii bâtiment bi xaj na fi bâtiment bi rek la ne xaj na fi ba ñu jëloon une partie wu seen terrain joxe ko pour ñu def ko foofu mais bi ñu waxtaanee ñu ne mais bâtiment bi su fi xajee te tey jii soo doon tabax direction wala logement wala parking du fi xaj mieux vaut ñu jël ko yóbbu ko hôpital bi nekk ci yoonu Daaru Musti bi ndax hôpital boobu dix hectares la defe naa ñu ne foofa sax mooy gën ndax dina am espace bu doy parking yi ñu fa bëgg dina fa am logement suñ ko fa bëggee def dina fa am suñ fa bëggee tabax magasin pour def yi ñuy yittewoo pour liggéey ci centre bi dina fa xaj loolu nag moo jëlee liggéey bi foofu docteur kontaan na nañu amoon mbégte ànd ak yow tey si leeral yi nga xamante ni jëriñ na askan wi te ku nekk loolu la demoon leer na sa bopp di fàttali ñoo ngi dalal tey jii si actu santé Ndindy Actu docteur Mamadou Dieng médecin chef région de Diourbel kon ñu bàyyi la bu fekkee amoon looy dool rek ñu tëj émission bi. di sant ci opportunité bi ngeen ñu may ngir ñu wax ak askan wi di jeexale suñuy kàddu kàddu sant sant sëñ Mountakha Bachir. bu baax ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér di sant mbooleem njaboot sëñ Touba di sant kilifa yi ci dëkk bi yëpp ndax xam nañ ne lii ñu nekk ñoom ñëpp jàpp nañ ci ñaan yi gis nañ ko ndax résultat bi ñu am euh, ak luñ ci mën a laal laal xam nañ ne ñaan moo ñu ci indi bañ a agsi fii kon ñu ngi sant ñëpp di ñaax askan yi ngir ñu gën a taxaw ci lii nga xam kër docteur mu ngi koy digle muy wàllu set bi ci loxo di raxasu bàyyi nuyoo bi bàyyi mbooloo yi ñuy dem ak yooyu ba pare wàññi dem beeg dikk bi bañ a génn dëkk bi itam di dem ci ay dëkk yoo xam ne feebar bi dafa am ñu ngi sant ñëpp di dalal xelu nit ñi que ni Touba moom suñu mànkoo booloo ñëpp ànd euh, jublu ci jële fi lii yàlla mën na dogal mu jóge fi kon ñu ngi sant sëñ Touba di sant suñ borom jërëjëf. mbokk jox leen daje beneen yoon si seen plateforme mu ni di actu si actu santé jaajëf.